yo, yo, yo,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 di ñu déglu léegi nag dañuy laal ñaari araf yi jëkk ci abajada bi te bañ leen a woy nijaay asan yan jumtukaay la ñuy soxla ku ci nekk ci yéen di soxla sa téere kër ubbi leen xët juróom-ñett fi am araf yu ndaw yi ci wolof def leen fa xàmmeekaay bu mel ni daggitu këyit wala bant bu ndaw ngir mën ko gaaw ubbi waat su ngeen ko soxlaa mari ndax ubbi nga xët juróom-ñett waaw maa ngi ci xët juróom-ñett Badu ndax nga xët juróom-ñett waaw maa ngi ci xët juróom-ñett. yaakaar naa ne suñu xat yi ñuy déglu ñoom Émilie ca Fatick Moustapha ca Njaareem Aysatu ca maatam Hadam ca Kaffrine Simeer ca Ndar Mbargu ca Louga ak seeni morom yi ñoo ngi ci xët juróom-ñett léegi nag teg leen seen baaraam ci suufu araf wi jëkk wi janoo ak biddiw bi samay jarbaat ak suñu xarit yi ñuy déglu ndax teg ngeen bu baax seen baaraam ci suufu araf wi jëkk te janoo ak biddiw bi waaw sunu baaraam a ngi tege ci suufu araf wi samay jarbaat ak sunuy xarit yi ñuy déglu nu laalandoo te waxandoo ñaari araf yi jëkk yi aywa ma wàññi ba ñett benn ñaar ñett a ba ngeen ni a ba waaw kay nu baamtuwaat ko su ma wàññee ba ñett benn ñaar ñett a ba waaw kay xale yi waaw kay suñu xarit yi amuleen moroom nii la léegi nag nanu jàll ci benn yëngute léegi nag sama jarbaat yi ngir waajal liggéey bi yëkkati leen seen baaraamu joxoñukaay mu tolloo ak seen xar kanam seen xarit yi ñuy déglu it nanu yëkkati seen baaraam may leen ma ma xool ndax yëkkati ngeen seen baaraamu joxoñukaay ci kaw yaakaar naa ne seen xarit yi ñuy déglu itam ñoom baali ca mbàkke alimatu ca kaneel yaama ca mbirkilaan baabakar ca kebemeer semu ca ngin gi new ak seeni moroom ñoom it yëkkati nanu seen baaraam saa su ma tuddee araf ngeen laal ko aywa ba ba a ba a a defaat a ba waaw leen góor waaw leen kumba xale yi gis naa ne teg ngeen seen baaram bu baax ci suufu araf yi yaakaar naa ni seen xar yi itam def nañu ko waaw kay samay jarbaat ak suñu xarit yi ñu déglu léegi nag dañuy tàggatu ci laal ay araf tudd leen bu gaaw ngir tàmbali ci ñaari araf rekk lañuy liggéey ci lu dul yàgg dara deenu jëfandikoo araf yu bare nijaay asan naka la ñuy jàngee laal ay araf tudd leen bu gaaw xët juróom-ñett ci téere kër bi ngeen di jëfandikoo mooy xët yu ngeen ubbi woon ci liggéey bi weesu ubbi naa sama téere ci xët juróom-ñett nijaay man tamit ubbi naa yaakaar naa ni seen xarit yi itam ubbi nañ seen téere ci xët wi léegi nag dañu tàggatu ci laal te tudd ñetti araf yi topp ci a ak ba samay jarbaat ak suñu xarit yi ñuy déglu teg leen seen baaraam ci suufu araf wi jëkk te topp ci ba ndax yen ñëpp teg ngeen seen baaraam ci suufu araf wi topp ci ba waaw teg suñu baaraam ci suufu araf wi topp ci ba topp ci ba mooy arafu ca yéen ñëpp wan araf ngeen joxoñ ca oh. baamtuwaat leen ko ca bu baax ca amuleen moroom xale yi léegi nag na ñépp teg seen baaraam ci suufu araf yu topp ci ca samay jarbaat ak suñu xarit yéen ñi ñu déglu ñi féete Koungheul Foundiougne Ndande làmbaay Paal pete Ranérou Ñaaxar ak yeneen gox yi ndax yéen ñépp teg ngeen seen baaraam ci suufu araf wi waaw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 araf wi topp ci dë mooy e yéen ñëpp wan araf ngeen joxoñ e. e ngeen ne e léegi nag xam ngeen arafu cë dë ak e dañuy tàggatu ci laal leen te di leen tudd maa ngi njëkke damay laal araf wu nekk te tudd ko cë dë e samay jarba ak suñu xarit yi ñu déglu léegi nag yéenay laal araf wu nekk te wax nu mu tudd maa ngi wàññi ba ñett benn ñaar ñett c de de e. e jarbaat baamtu leen ko c de e. e léegi nag nanu bàyyi sunu xarit yi ñu déglu nu laal araf wu nekk te tudd ko ah waaw leen góor waaw leen kumba ni ngeen laale araf yi tudd leen noonu la suñu xarit yi amu leen moroom léegi nag dañuy tàmbali liggéey bi tudd wane araf wi ngir waajal ko yëkkati leen seen baaraamu joxoñukaay mu tolloo ak seen xar kanam seen xarit yi ñuy déglu ñoom itam nañu yëkkati seen baaraam may leen ma ma xool ndax yëkkati ngeen seen baaraamu joxoñukaay ci kaw yaakaar naa ne seen xarit yi ñuy déglu ñoom it yëkkati nañu seen baaraam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 yéen ñépp laal leen ca te jàng ko ci kaw ca ca baamtu leen ko ca waaw leen kumba waaw leen góor yéen ñépp laal ngeen ca jàng ngeen ko yëkkatiwaat leen seen baaraam aywa yéen ñépp laal leen dë te jàng ko ci kaw dë baamtuwaat leen ko dë aha waaw leen ngóor waaw leen kumba yéen ñépp laal ngeen dë jàng ngeen ko yëkkatiwaat leen seen baaraam ay wa yéen ñépp laal leen e te jàng ko ci kaw e baamtu leen ko e waaw leen góor waaw kumba yéen ñépp laal ngeen e jàng ngeen ko niki ni ma leen ko waxe woon deenu baamtu liggéey bi ci yeneen émission yi di ñëw ak yeneen araf amuleen moroom xale yi léegi nag dañuy dem ci beneen liggéey bu bees liggéey bii nag dañu ciy jëfandikoowaat sàllu kanaara mari wax nu fàttali nu naka la defe sàllu kanaara nijaay su ma dee def sàllu kanaara damay dajale samay tuñ naj leen ak samay baaraam ba sama gémmiñ du mën a ubbeeku aywa nun ñépp nanu àndandoo jéem sàllu kanaara yéen samay jarbaat ak sunuy xarit yi topp émission bi dajale leen seeni tuñ naj leen ci seeni baaraam ba seen gémmiñ du mën a ubbeeku ah sama jarbaat yi <laughs> def ngeen sàllu kanaara ni mu waree xam naa it ne seen xarit yi ñuy déglu def nañu ko bu baax li ci topp mooy dañuy yëg dogi baat yi ci sàllu kanaara badu ndax yaa ngi fàttaliku naka lañuy doon def bay yëg dogi baat yi ak sàllu kanaara damay yëgaale dogi baat yi waaw góor sama jarbaat yéen ak seen xarit yi ñuy déglu dangeen war baamtu baat bi laataa ngeen di def sallu kanaara ay wa yéen ñépp baamtu leen musiba musiba baamtuwaat leen ko musiba jarbaat léegi nag dangeen ngeen di fàttali suñu xarit yi naka ngeen di def ba jëfandikoo sàllu kanaara ngir yëg dogi baat yi nekk ci musiba nan ngeen di def ba yëg dogi baat yi nekk ci musiba waaw damay def sàllu kanaara boole ko ak liyaar musiba te ba a ubbi sama géñ mi mm, mm, mm. wóor na ma ne suñu xarit yi déglu ñoom it mën nañoo jëfandikoo sàllu kanaara ngir yëg ak waññ dogi yi léegi yéen ñépp jëfandikoo leen sàllu kanaara te bañ a ubbi seen gémmiñ liyaar musiba mari ñaata dogi baat nga yëg ci musiba ñetti dogi baat la nijaay kon gis ngeen yëg li mu dogu baat ak sàllu kanaara dafa nuy dimbali ci wàññi ñaata dogi baat lañu am ci baat léegi nu bàyyi sunu xarit yi déglu ñu jëfandikoo sàllu kanaar ngir yëg doggi baat yi yéen suñu xat yi ñu déglu Ousseynou Hélène Tamsir Khoudia Albert ak Moustapha ak seeni morom yi baamtu baatu leen yéen suñu xat yi déglu rajo bi jëfandikoo leen sàllu kanaara ngir yëg doggi baat yi nekk ci leen suñuy wax leen nu ñaata dogi baat ngeen yëg waaw leen benn dogu baat la am waaw leen góor waaw leen kumba samay jarbaat yi léegi nag dangeen di fàttali sunuy xarit yi sàllu kanaara ngir ñu yëg dogu baat wala dogi baat yi nekk ci dafa defaat leen ko jëfandikoo sàllu kanaara dafa mm. Mm. Mm. baamtu ko dafa Mm. Eh, yéen suñuy xarit yi ci kër gi yéen a war a baamtu baat bi te sàllu kanaara mari ñaata dogi baat nga yëg mm, mm. ñaari dogi baat laa yëg nijaay wax nga dëgg waaw kumba dafa ñaari dogi baat la am léegi nag léegi nag suñuy xarit yi déglu rajo bi ñooy def sallu kanaara ngir yëg dogu baat wala dogi baat yi nekk ci daanu suñu xarit yi wax leen nu ñaata dogi baat ngeen yëg ci daanu samay jarbaat yi ñaata dogi baat ñoo nekk ci daanu ñaari dogi leen ko ma dégg ñaari dogi baat ñaari dogi baat la am waaw kumba mari waaw góor badu léegi nag suñuy xarit yi def leen sàllu kanaara ngir yëg te waññ dogi baat yi nekk ci tasewul suñuy xarit yi wax leen nu ñaata dogi baat ngeen yëg ci tasewul samay jarbaat ñaata dogi baat a nekk ci tasewul tasewul mm, mm, mm, ñetti dogi wax ngeen dëgg tasewul ñetti dogi baat la am waaw leen góor waaw leen kumba léegi nag suñuy xarit yi def leen sàllu kanaara ngir yëg te woññ dogi baa di nekk ci ku suñu xarit yi wax leen nu ñaata dogi baat ngeen yëg ci ku samay jarbaat ñaata dogi nekk ci ku ku benn dogu kese jërë ngeen jëf yéen ñëpp jëfandikoo ngeen bu baax sàllu kanaara ngir yëg te wàññ li mu dogg baat yi nekk ci baat yi ngeen dégg. Marie ndax mën nga noo fàttali baat bi nu jàngoon ci émission bi weesu seen xel yi ñu déglu ñoom Paul ca Djilor Awa ca Linguère maas ca malem hodaar ndumbe ca sibasoor jëmb ca paal haamidu ca ndulumaaji ak seen yeneen xarit yi ñoom it war nañu jéem nijaay jàngoon nañu baatu ay gaaf waaw kumba mari badu jéemal a defar kàddu gu am baatu ay gaaf seen xarit yi ñuy déglu tamit war nañu jéem loo dugg mu yàqu amuleen moroom jàmbaar ngeen ci sunu lesangu tey dinañu jàng baat bu bees baat bi nuy jàng tey mooy yanj ma jox leen am misaalu kàddu bu ngeen xam ni niñ jëfandikoo baatu yanj xale yi dañoo yanj tey ci ubbiteel école bi mari ndax mën nga ma wax lu yanj di tekki seen xarit yi ñuy déglu tamit war nañu jéem yanj mooy sol ay yére waaw ku ma mari na sa seex wéyal nu xool badu ndax mën nga nu jéem wax lu yanj di tekki seen xarit yi itam war nanu jéem yanj mooy sol dàll yu rafet waaw góor badu xale yi jërë ngeen jëf ci jéemantu bi dégg naa ci seeni tontu ngeen wax ne yanj mooy ku sol ay yére wala ku sol ay dàll yu rafet nanu xalaataat bu baax mari ay ca léegi mari jéemal a defar kàddu gu am baatu yanj seen xarit yi ñuy déglu itam war na nu jéem tey badu dafa yanj ndax dafa war a dem ñaani ndewenal waaw kumba mari badu ndax mën nga defar kàddu yow tamit gu am yanj seen xarit yi ñuy déglu ñoom tamit war nañu jéem sama kër maam dafa yanj lool yéen suñu xarit yi yegsi nañu ci njeextel liggéey bi nu waroon ci baat bi bég naa lool ci yéen tàccu leen seen boppuwaay waay leen moroom xale yi yéen suñu xarit yu ñu déglu léegi dama leen di jàngal am nettali boppu jukki bi mooy li maa ngi leen di ñaan ngeen teewlu ko bu baax suma nuppee ci njàng mi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 bés bi mu amee doom nag dellusi na tey lañuy ngénte xale bi ci suba teel la yaay mari yeewu dem defari boppam tusngalu ba mel ni séet mu ngi la solal benn yére jesneer bu rafet a rafet bi mu paree mu génn toog di xaar ay ganam bi waxtu wi jotee mbokk yi ak xarit yi ñépp dajaloo ci ëtt bi sol seen yére yu yànj bàjjen bi taawu liir bi indi ndax ci sunu aada moom moo war a téye doom ji bu ñu koy tudd baayu liir bi abib déey turu xale bi imaam bi imaam sëgg ci nopp liir bi siggi siiwal tur wi ñaan nit ñi toogoon ku nekk jël xale bi ñaanal ko bi loolu weesoo lañu séddale laax yi teg ci beñe ak tàngal ji ci biir kër gi nit ñaa ngi dem ak a ñëw boole ci di sargal waajuru liir bi ñenn ñi di laajte naan nan la liir bi tudd bés boobu yépp gan ñi dañoo yendoo lekk ka naan waaye bi ñu seddalee ceebu yàpp bi li ci yéeme mooy dafa mel ni nit ñi mësuñoo lekk bi tàkkusaan jotee jigéen ñi demaat defaru solaat yeneen yére yu rafet ngir ngoon gi noonu nag ñu def seen géew ak géewal yi tëgg sabar ñu door jokkalante ndawtal yi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 ci la ko ñépp ñaanal bi ñu añee ba noppi ginnaaw tàkkusaan la jigéen ñi defaruwaat daldi def seen géew ngir joxe ndawtal yi waaw kumbaawaay mari badu wax nu jëmm yi gën a fees ci nettali bi seen xarit yi ñuy déglu itam war nañu jéem a tontu ci laaj bi nijaay jëmm yi gën a ci nettali bi xanaa la imaam bi baayu liir bi ak bokk yi ak xarit yi waaw góor badu xale yi yéen daal jàmbaar ngeen xale yi yéen suñu xarit yi ñu déglu yegsi nañu ci njeexteel liggéey bi ñu waroon ci nettali bi wone ngeen ci njàmbaar gu rëy rëy tàccu leen seen bopp yéen suñuy xarit yi ñu déglu Roqeya Malik Aana Demba Xojo ma jama ak seen xel yeen xarit yi laataa ñuy tàggatoo ak yéen bëggoon nanu ngeen tànn ab diir ginnaaw émission bi ngir jàng li nekk ci xët fukk ak benn ci téere këru séyi wala xët fukk ci téere këru seppe ndax jàpp ngeen li ma wax xale yi waaw li jaay yéen waajur yi bu émission bi jeexee mën ngeen itam jàngal seen doom naka lañuy defare ab nataal te boole ko ak ab tekki loolu dafa am solo lool ci njàng mi sooy def bi liggéey faw nga jàpp ñett yii fexeel xale bi nataal di ko neex lu mel ni aw rab ekoolam walla leneen lu ko soob nanga ko wax mu meloolal la nataal bi ci ay baat yu gàtt su noppee na def ab ticket ci suufu nataal bi te mu bind ci genn kàddu guy melool nataal bi wala guy wax ci nataal bi su fekkee ne xale bi mënagul a bind ay baat wala kàddu yu mat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 jot na nag léegi nu tàggatoo ak sunuy xarit yi jaa ngeen jëf ba beneen yoon école bi wéet na ndax mbas mi elew yaa ca kër ya jaaxal seeni waajur waaye seen jaaxle jeex na programme lecture pour kër gi ngir wéyal jàngaleem li bantu jaarale ko ci rajo boobu